ndaje bi ñu fi am tey ndajale bu nga xam ne mooy juróomeelu conférence bu Africa America Institute di def sur le développement de l'enseignement supérieur en Afrique Africa America Institute benn kuréel la bu nga xam ne dafa juddoo États-Unis depuis 1953 te nga xam ne ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom ay américains la yu nga xam ne dañoo cosaanoo Afrique ñoom ñoo ko dajale pour xool naka la ñuy collaborer ak Afrique depuis 1953 ñoom jàpp nañu ne eh, collaborer ak lan la ñu mën a indil Afrique te lu nga xam ne daf koy jëriñoo Afrique te Afrique amagul woon doole bi mooy jàngale mi jàngale mu kawe bi ñu joxe ay bourse ay étudiants léegi nag ren mooy juróomeelu at bi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom léegi dañuy ñëw waxtaan ak africains yi. xool lan mooy lan la ñu war a def fan la suñu njàngale mi mu kaw euh, njàngale mi yëpp fan la yem njàngale mu kawe bi nga xam ne moom mooy porté njàngale mi fan la war fan la yem ak far la war a jëm par rapport ak ñun lan mooy suñu euh, lan la ñu soxla Afrique lan la ñu soxla fan la ñu nekk mooy suñu rang ci économie mondiale bi parce que tey économie mondiale rang bi nga ci am dafa bokk dafa méngoog rang bi nga am ci sa système d'enseignement supérieur parce que tey économie bi nga xam ne xam-xam moo ko jiite la dootul doole dootul industrie dootul banque dootul xaalis kii jiite réew mi mooy kii jiite àdduna bi mooy ko ëpp xam-xam États-Unis buy jiite àdduna bi ba léegi mooy moo ëpp fu ñu moo gën a mën a defar xam-xam donc euh, réew mu nekk dañuy xool fan nga mën a defar xam-xam nag ci université yi la moom ngay defar xam-xam bi mais moom nga koy jox jàngal étudiants yi ñu xam ko pour que ñu dem nekk ay cadres humains donc loolu système boobu il faut que ku bëgg a développer il faut que nga koy évaluer at bu jot loolu la ñuy évaluer pour Afrique fii Sénégal di ko di recevoir deux fois gis nañu présence su première dame mu Niger ak ministre bi wane na na kon di ma li ñuy xëccoo li ñuy wax Afrique la soxal maintenant enseignement supérieur bi. dafa bokk ci li nga xam ne Sénégal moom le président de la République moom la teg ci plan Sénégal émergent yooyu tamit tax na bu ñu toogee di waxtaan dañ ciy waxtaan te ñoom experts yi ñëw nañu ci Afrique yëpp pour wax ñun gouvernement du Sénégal taxaw nañu pare nañu luñ fa génne lu nga xam ne day jëmalee système bi mu gën a taxaw gën a am ay matuwaay euh, loolu dinañ ci dinañ ci dinañ ci bàyyi xel bu baax te dinañ ko mettre en œuvre.